Euh, sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk téléspectateur u Meouane TV yëpp. Ah. waaw di leen dalal jàmm. yow yaay président organisateur u nu mu sax. tournoi tournoi ASC. tournoi Bara bi. waaw tey lan nga ñu ci mën a wax ak ak tardement yeeg yooyu. waaw tardement yi li ko waral mooy manque de sécurité parce que boo xoolee tournoi bi ni mu débuté woon. jaaroon na yoon mais dañoo dem ba benn dernier ligne finale bi moo am ay problème yu si amoon ba match bi àggul ba bi ñu koy sécurité pour amalaat deuxième léegi à part loolu événement yi dal suñu kaw màggal bi ak mawlud bi ak euh, panin bi tamit nekk ci yenn diggante yoo xamante ni xawoon naa bougé amoon problème mu dal léegi bi ñu ko jàppee le 13. ñu dem waxtaan a ak commandant Diogo bi ak euh, sous-préfet wu ñu xam ñu ne carrément treize bi ci mën a sécurité léegi ñu obligé buux ko ba décembre yi le vingt-huit décembre. Hmm. mais par rapport ak final keroog bi problème yi amoon yow est-ce que yéen a ngi koy ci final bi. waaw loolu moo tax sax ba ñun forcé wuñu pour dëgg sans sécurité moo tax ñu bëgg xaar moment boo xamante ni day favorable pour ñu am sécurité pour mën koo tëgg ci anam mu jaar yoon parce que dañoo bëggoon li nga xamante ni mu ci final bi bi xamante ni jaaroon na yoon dem ba ci dañu leen moment bi moom ay rëkk-rëkk loolu la ñu bañ mu dal ñu ko bëgg a joué final boo xamante ni dina jaar yoon nit ñi waa Méouane gépp dund ambiance te décembre fête la ñu tamit dañu war a profité pour joxe kado waaw loolu tamit bëgg jox gars yi cadeau Noël. andi benn final boo xamante ni dañ ci invité ay artistes invité ci ay nit ñoo xamante ni ay star lañ daal ci ci ci réew mi lépp tamit jaar ci yoon. mais date bi ngeen jàpp yéen ko jàpp seen boobu wala sous-préfet moo ko jàpp. waaw ñun ak fan ngeen toll ci programme kii boobu. ñun ñi nekk ci commission bi ñoo ko jàpp suñu bopp ak panel bi waxtaan nañ tamit ak panel bi pour date boo xamante ni ñoo ko arrangé waaw ak ñi ko seexal ñëpp comité bi am ñoom it seen hmm. ñoo ci waxtaan ba d'accord ci. Hmm. date boobu te tamit boobu dina nekk date boo xamante ni euh, dina permettre ressortissants yëpp ñu ñëwaat pour mën a dundal ñun événement bi. Hmm. waaw mais ñaari équipe yi ci wàllu jàmm lan nga lan nga lan nga leen di kii ñaax. waaw maa ngeen di woo ñaari équipe yëpp ci fair play parce que boo gisee ASC bu mel ni ASC kaddu gi euh, daaw depuis daaw la fi ñëw kenn mësu koo gis ci yenn coow yu rëy ASC yu gi tamit même chose ñoo ngi leen di woo rek foofu ñu teg koo teggi ñëw ci jàmm que le meilleur gagne. lu ma di xew ndam yi du gën mewaan meewaan ñaari équipe meewaan ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jongante lu ma di xew fii ndam yi des ñu xamee ko noonu rek. mais organisé bi waa waa Mbor rek ñoo koy def wala waa Mewane da ciy bokk comme ça. situation sécurité bi waa Diogo ñoom ñooy doon sécurité bi mais ñun tamit ñooy ànd ñoom ci liggéey bi waaw ku ci mel ni moo ci domaine boobu ñëpp ku lim juum hmm. waaw ñooy ànd ak waa ko mu jaar yoon daal lépp tegu ci temps ak waa mouvement BSG parce que mouvement BSG ñoom am nañ seen comité boo xamante ni euh, am nañ benn comité d'organisation boo xamante ñu ñëw ñoom it ñu liggéey bi quoi. kon waaw di nuy ñëpp di sant ñëpp.